Maam Lamine Gueye bu Kaolack journée bi nga xam ne dañ ci ànd ak Yamoussou production muy drapeau Ahmed Youssouf Ben Saloum drapeau monsieur Saliou Badiane responsable politique à Kaolack ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñuy présenté kenn ki nga xam ne moo sol ngemb lu ñuul vert li yëkkati loxoom kooku mooy doomu Ndiafat keneen ki mooy Zambala jóge kawoon ñaari xale yaa ngi noonu ñu leen di présenter public bi ndeysaan ñaari xale ngi noonu di ñëw arbitre central bi mooy Mayel Thiam fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack bi 20 heures tegalee 23 minutes ñuy souffle premier combat bi avertissement Zambala ah avertissement Zambala arbitre nee na ndax pare ngeen nee na ndax pare ngeen soufflé na premier combat noonu doomu Ndiaffate féete ñu ndeyjoor daw na téye ko ci loxo doomu Ndiaffate ak Zambala Zambala mëm na mais demul tibb na suuf def na ci ngemam Zambala le grand lutteur doomu Ndiaffate Zambala fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack ndeysaan xale yaa ngi noonu Zambala téye na ca bopp doomu Ndiaffate doomu Ndiaffate Zambala poids léger la waaye na ko jox cër lambu ceeb da ci bax ndaysan Zambala ak ki nga xamne moy doomu Njaafat doomu Njaafat mo ngeem mo ngeem lu fete li fete ñu on legi nak mo ñu fete gannaaw ki nga xamne moy mooy doomu Njaafat sëgg nañu ñom ñaar ndaysan doomu Njaafat mbaru Ousmane mbay ñu nan ko usu bebe param Dunya FM Kaulak, param Yor Yor Dunya xala bang koy wër ki di Zambala rotation boy ba rek luur noonu ngay def rotation djum ko jiwal ak moom tey ko mo af nga manipuler ko dan ko lolou la bëgg waaye nag doomu Ndiaffate tay na teyante nañu ca loxoyam yam tegente ñaari bop lu fay am lu fay am ndeysaan lamba ngi nii fii ci stadium Lamine Gueye bu 12e journée production Pambay ndeysaan kokuma moy mooy ayda ya blonde job madame laay lay la laa lamb wooteeti na ndeysaan lamb wooteeti na lamb wooteeti na ndeysaan lamb wooteeti na lamb wooteeti na jàppoon nañu ñoom ñaar lan moo fay am xale yi dañuy bëre bëre jine doomu Ndiaffate dafa ndànk de booy yi bëre la ñuy bëre jàppoon nañu ñoom ñaar Zambala doomu Ndiaffate bàyyante ñu ah doomu Ndiaffate da nga koy accéléré ndeysaan doomu Ndiaffate mi ngi koy jéem a accéléré di dox ci kawam dafa ndànk jàppoo ba la bëgg sottil ko jàppoo ba sottil ko daw na téye ko kal na ko daw na ko fiile na ko bëgg koo war nomba mais demul ñoom ñaar génne nañu génne nañu lu am arbitre mais nee dama soufflé. certainement da leen di woowaat ñu bëre ah commencé naa neex commencé naa neex nee na ko su ma del baay suma ma soufflé del bàyyi waaw ah avertissement amul ah soufflé waat na jàppoo nañu daw na téye ko nooju na ko ca suuf doomu njaafat zambala doomu njaafat zambala doomu njaafat pàdd na ko téye na ca ngemb na ca ngemb doomu Ndiaffate Zambala Zambala mo ñu won gannaaw doomu njaafat xale ku su bébé bi radio Dunia FM Kaolack ndaysan liet naawu kapo ndaysan doomu njaafat tey na ca ngemb la tey na ca ngemb la tey na ca ngemb la ca suuf arbitre ma ngay yeldo di xol ba xam famu mu ndax lamb ba ko wax wala lamb wax ko doomu Njaafat Zambala doomu Njaafat Zambala dara amagul ba léegi 4 minutes 36 secondes fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack doomu Njaafat Zambala ndeysaan Zambala mi ngi jéem a dugal loxoom pour moom it ci ngembu saa di ko xañ tey bu yàggee coono am coono bu yàggee sonn am sonn bu yàggee mbër la sexe ko ëpp coffre mooy fay attention attention attention attention kalba dafa sori attention attention doomu njaafat fi la yegg sori na ki la yegg sori na ki ngay bëre daa mën a bëre bàyyi ci xel laa ilaha illallah waaye Zambala mi moom technicien la di waa Zambala mi lu mu bëgg nii coy lii maa ngi den suba suma xarit général TV baram gaan ndeysaan le grand reporter de lutte kooku lañ naan Ndéné le grand reporter de lutte ñu naan ko général xale bi nga xam ne fu ma pat am ci biir Sénégal xam na ko il fi un excellent un excellent travail pour la lutte simple non chapeau à vous nekk xorom ci cin lambu kew la ndangaan yaa ngi koy doxal kontaan nañu kenn du yow waaye da nga indi sa tuusu bopp bu spécial moo tax ñu bin la bunt yi na la doxalal général ku ñu la laa déy déy nañu la Kaolack da lay safoo da lay ndamoo demal général ndeysaan xale yaa ngi noonu jàppoon nañu ba léegi nii ndeysaan xale yaa ngi noonu attention attention attention attention luy am luy am général fin la yegg fi attention général attention Zambala Zambala tooñ nañ ko tuur nañ ko dan nañ ko doomu Ndiaffate daan na général doomu Ndiaffate daan na euh, Zambala laa ilaaha illallah doole doole doole doole doole doole laa bu doole doole a nekk lu nekk mu ma koy wax sa biir bi daa rey na fi génn na fi ay détails yu bëri yooyu ma ne ko dama lay jàpp jaay doole daan la waaw. ni ko téye ndax am na tuuti doole mais maa ko doole gisoo fu ma ko noonu tegal ko siège mu bañ mu daw ko mu war ko nombo door ko mu daanu kii maa ko mun. man kenn laay njëkk a gërëm kenn laay njëkk a gërëm. muy le grand DG Senghane Ndiaye kooku kum jaawul oto doo dawal kum luwaasul oto doo dawal def na combat bi lu bëri bëri teg si kan madame la ay Aïssatou Ndiaye jàppale na ma si bés bu baax a baax jox man jox nañ ma ci xaalis def na mobilisation bu am doole maa ngi koy nuyu au passage la lion di Saloum Astou Ndiaye nuyu naa ko jaajëf Astou Ndiaye